baax a final bi vraiment ni ko gisse di wax assalamu alaykum di nuyu gaay ha jeri mom gis nga ko gona yaa ngi noonu def mobilisation bu rafet rafet ñom ñepp par nan waaw fas yéene def final bi ci jamm rek commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim mu àgg ak alhamdulilahi alamin ñun ñepp dal pare nan te ñu ngi xaar tamit sun monsieur le maire Bara ndjay inshallah waaw vraiment monsieur programme moom mu ngi dox normal moom ni mu tëddee moom ku dem terrain di nga gis monsieur le maire mu ngi ci li mu war a def lépp defal nañu ko tribune ba ñu ngi koy monté te am na tamit yeneen yu mu wax ni ñoo ngi ci yoon wi ku ñëw daal bu soobee di nga gis incha allah. Mhm. équipe moom vraiment taxaw na moom vraiment taxaw na moom tey moom lépp moom waajale leen ni ñu war a waajale moom vraiment comme ni ñuy waajale bu si daal waajale leen di incha allah damay am dam incha allah 3-0 laa indi. oui 3-0 laa indi. Mhm. sama maire moom du ma def lu di ko jaajëfal saa su ne kontaan ci moom yaa ma gën a xam man kontaan naa ci moom gars yi kontaan ci moom bég nañ jàppal nañu bu baax a baax a baax duñ def lu ñaan ko tawféex rek incha allah yàlla defal ko ko jaajëf merci jërëjëf. comme niñ ko gisee rek ñu ngi nii ci regroupement ASC Gone tey nga xam ne tey moo war a daje final contre Mborine ASC Mborine tey ñu ngi nii ci regroupement ASC Gone tey dañuy dal ki nga xamante ne mooy Maysa mbay mu wax ñi comme ni mu gisee regroupement bi. waaw ça va ñu ngi ñoo ngi nuyu ñëpp quoi waa tey regroupement bi <laughs> di préparer pour nu ñu mën a gañee suñu match ci jàmm waaw ñoo ngi fii gars yi ñëpp ñëw nañ añ nañ def nañ lépp ceeb bi feetu nañ yàlla nañu yàlla may ndam loolu lañ gis ci regroupement bi quoi. waaw may sa wax ji rafet na buñ xibaree dañuy xool li nga xamante ni regroupement bi ñu gisee togg nañ ceeb bi neex. ginaar yi bari na. koko yi euh, boisson yi bari na. xëy daal macha hmm. loolu moom. confiance la wala lan la. waaw waaw ak waaw confiance la tamit ak tamit nee nañ doo jën ndox waaw ak mbooloo mi ci ginnaaw nag moo waral loolu nag mu gën a nekk mu gën ñoo mën a may ñu am suñ confiance ci loolu tamit loolu di ko waral ci la bokk. waaw ñu laaj ndax may sa. ndox day bàyyi yoonam. waaw wala ndox day nekk fa mu daan nekk ba tey. waaw ndox du bàyyi yoonam bu bàyyee yoonam daa fekk pax ma daa fees te pax mi feesagul xaajagul kon ndox du bàyyi yoonam tey ji démb da ngeen am benn final. perte ko. est-ce que final boobu tey du nekk tey loo xamante ne da ngeen di ak pression tey ngir mën a dabu loolu. voilà benn côté nag finalu dem bi dafa am la ñu jàngal parce que boo liiree final dem bi kon final tay bi du la war a jaaxal faute yi nga defoon da nga koy rectifier kon bu tay bi incha allah ndam rek. ay ca may sa loolu rafet na gis nañ li nga xamante ni mooy sa interview ci regroupement ASC Gone tey euh. buñ xoolee dañu gisaat kenn ki waxante ni moo nekk ci wàllu côté staff bi muy Mor Ndoye nañ ko dalal mu wax ñu moom tamit gis-gisam ci wàllu regroupement bi ak match bi tey nan lay demee. ah di rafetluwaat lii di xam ne lii moom ah folo rek kaaf ak ree ñun ñëpp ñu seq ko muy loo xam ne nii day neexal dëkk bi loo xam ne ñun ñëpp dañ ciy jariñ ah damay wax comme tey si fi nga xam ne nii foofu la mooy sa daanelee muy finalu démb bi mu nekk ñun ñoo ko doon joué mu nekkan loo xam ne dañ ko doon joué ak mbégte ak fierté mu neexoon lool e, suñu ay moroom organiser ko oo ñu fa ñu ñëw ñu bokk di ko defandoo mu neex ba yàlla def na ñoom. yalla may leen victoire kon ñoom it dañ leen di encourage dañ leen di féliciter encore une fois ah di wax sama gay, ñu leen ñoom tamit buñ liku ben yoon nañ japp rek ta xamni non la mom wa ndox nak du bayonam damay dégg olof nak di wax naan yakamti mom bu la taxé war su ñël am ay mat lay jar kon buñ yakamti dara nañ tay xamni sion ci yoon lay tagué waaw kon señ bi ñu kontaan nañ bu baaxa baax ci yeen ah di rafetlu guru ma tay bi ndax de bu euh nañ ay xéewal yu dawe yu tawféex boisson yaa ko ko yaa ngi nii ndox mu sedd maa ngi nii tout ça lépp dara manqué wul lépp na ngir bëggal suñ ñi nga xam ne nii ñoom lañ fi oo ñu ñëw ñu leen di bëggal ngir loo xam ne nii tey dinañ am courage boo xam ne buñ demee teeree dina am ñi kat lii ñor na leen lool te muy lu nekk loo xam ne suñu grand yi ñu ngi ci sonné depuis sa matin di si def di dindi ku mel ni Yoro Soirée te suba ba léegi toogul mu ngi tourné ku mel ni Pam Ndiaye moom tamit nax nu ko zalika

waaw comme bas euh, est-ce que tey kër loolu nga xamante ni diggéen nga ko say supporter keroog demi-finale bi ñu séntu la ñëw ndax tey finale bi di leen jox li ngi leen digoon wala lan nunoo teew mais am na lu daanaka mais dara mais tey leen wane lu kër lu man leen ko wane insha allah waaw loolu dara moom leen wan lu lu kayi sa njot leen ko wane insha allah waaw baax na dégg nañ Basir ni mu waxee léegi dañuy topp jëm ci nga xamante ni mooy kottu ay bi dem tey ji ba tollu fii c'est grâce